seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yër yéenekaay yi ak maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne fi mu nekk nii jógul ci indi Macky Sall gi te ngaas gu saf sàpp giite ngaas bu saf sàpp la wadd indil jamono yi makki Sall démb ba nga woon ca Kaolack ngir indi njaalam ca Léona seen waaye Macky sàll yàkkati na ko fa lu mel ni xeme Maître Abdoulaye ne du bàyyi Macky de déedéet dina defanteeg moom ba mu saf sàpp yéene kaay bii di Les Échos na wàdd la ilaha illallah lu mu waxul Macky Sall da koo fàtte yéene bi lu côté yéene dafa mel ni kay avion bu daanu ci kaw Macky Sall crash Vox Populi na wàdd mu ngi tëkku Macky Sall ne ko Macky yow laay wax ak aéroport international Blaise Diagne bii bu ko jox benn yoon sama tur te boo jëlee loolu di ko def dinaa la yóbbu tribunal dinaa la porter plainte waaw luy ndey ngay jëli euh, aéroport international Blaise Diagne di changer tur bi di si def Ablaye Wade bugguma tey bëgguma suba. loolu faaw mu leer sa bopp ndax man damaa jàpp na Blaise Diagne héros la waaw moom sax Ablaye Wade mu ne man dama jaaxle Macky lu tax mu bëgg a changer tur bi man dama ko ko sant sant ma ko de bés bu koy def ma koy porter plante loolu la maître Ablaye Wade waax ba pare nag di kookali Macky Sall kookali lu doy waar nee na ko ci biir yéen kay bi Les Échos man duma président boo xam ne su ma demee Touba murit la su ma demee Tivaouane ne tiijaan la su ma demee ne Médina Gounass ne tiijaan laa man murit dëgg laa te moom laa gëm Ahmed Khalifa Niass déglu Maître Abdoulaye Wade ba mu wax ba noppi mu yokkal ko ci leneen na ko yow yaay président à vie président à vie ndax nag sa mbaax wër na réew mi yéen kaay bi Les Échos jottali ñu xibaar yu ñu mel pharmaciens yi nag mer ba futt yéen kaay bi di enquête dikk ci trafic de médicaments contrefaits amul benn sanction pharmacien ne li day dakk amet ñaaw bu nekk ci ordre des pharmaciens ne fi mu nekk ni ordre bi day constituer partie civile jël na avocat maître baabu ak maître Kanouté maître baabu ci yéen kaay bi di Vox Populi ne système mafieux moo am te nit ñu baree bari xam ko di jël poison di ko yóbbu ca Touba population yi di ko naan di garab yu bon a bon yéenekaay bii de enquête na procureur ubbi na ci sax li nga xam ne moo di enquête ndax maître baabu moo ko xamle. pour ñu bàyyi kii nga xam ne moo di xalifa Sall yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien ne ay ñoñom yu nekk ci Rufisque ñoom. ñu ñuul kukk lañu sol ne adada dafa doy nag yéen kay bi Les Échos dikk ci ay diggee yu Macky Sall defoon policiers yi nekkoon retraite ñoom ñooy wax de nee na Macky ba mu nekkee candidat moo leen woowoon na leen fi mu nekk nii voté leen fexe leen ba ñeneen tamit votel ma seen problème naa ko réglé renseignement boo leen am jox leen ma ko infiltré leen sama cortège ngir bañ ñu gàllankoor ma Vox Populi jox kàddu Cheikhouna Keita président mouvement national des policiers à la retraite nee na laata atum 1987 balaa ñu leen ni radier police bu Sénégal moo jëloon première ci Afrique monde bi moo jëloon onzième moo rawoon sax bu France dialogue politique ministre de na ne day am de bu wadd ñëwee baax na bu ñëwul baax na ñun daal dinañ amal suñu dialogue politique ñu wax ci gaynde yi Vox Populi Aliou Cissé tey rotal ay kàddu ne Sénégal mën na dem fu sore sori waaye nag ñu foog ni ay titulaire lañ ci équipe nationale juum nañ dañu liggéey de poste titulaire da koy mérité yéen kaay bii di l'observateur nag koppar yi Macky Sall jox gaynde yi nag jur na réeroo waaye cadre yi nekk ci biir équipe nationale nee nañ day leer day leer de séddale bi na leer nañ cinq jours la mbir mu concerné waaye nañ gaaw fàtte loolu ndax nag enquête nee na yu neex a neex mi ngi xaar gaynde yi ci coupe monde bi Modou Lo Lac de Guiers jàpp nañ date 28 janvier 2018 les échos moo ñu ko yëgal jërë jëf jéegi mu di région jàmm seen site Dakar Matin point com incha